Assalamualaikum monsieur le président Mangi ngi lay nuyu. monsieur le ministre Mangi ngi leen di nuyu di nuyu sama collègue député monsieur le ministre jàpp na né jamm mu meuna am tim réew la cay jitu mooy ñu fexé ba amal ay élections yo xamantene dañuy respecté manam date yi mais aussi ñu amal ko ci mu lèr lolu bokku na ci li indi jamm ci am réew. ndax réew moo gis li ci ëpp mu tàkk rek la koy indi mooy élection ñàkk jaar si yoon wala ñu war a ay élection ci defuñ ko kon monsieur le ministre loolu la ñuy séentu waaye nag ñun yaakaaruñ ko ci yow ndax li tax yaakaaruñ ko ci yow ah fi nga jaaroon ndax bul fàttee ne yow yaa nekkoon procureur bu CREI yàlla dogal nga nekk substitut du procureur sunu avocat yi bind wane ne yow ñu xëy suba nommé la procureur dàq Aliou Ndao sunu avocat yi bind cour suprême wane ne amoo sañ-sañ ba ak maqaam ak grade ñu wàccee la président Macky Sall wàccee la tabaat la pour nga topp Karim Wade ñaata procureur ñoo nekkoon ci Sénégal yoo amoon grade bi ñu waroon leen a mën a jël ca ñu leen mais yow la ñu yokk sa grade pour tabaat la pour mu nga topp Karim Wade yemoo foofu bi nga xamante ne juge bi tëj na Karim da ngay jëlaat réquisitoire defaat benn réquisitoire demandé waat Karim Wade pour ñu xañ ko ay droit civil am ak politique am ma jàpp ne booba yow moom nga duggoon ci politique booba nga nekkoon nit boo xam ne président Macky Sall moo la monté pour que nga topp Karim Wade kon yow kooku boo ñëwee ñun amuñu si yow yaakaar doyooñu yow ci sa bopp ñu tëj Karim Wade le 23 mars 2015 le 7 mars 2017 ñu tëj Khalifa Sall Macky Sall nommé waat la assistant du chef de l' état nga demaat toppiwaat Khalifa Sall boo masaan a ñëw ci salle d'audience bi booy lay yaay dàqal lay maanaam avocat état yi pour taqal Khalifa Sall pour ñu tëj bi ñu tëjee Khalifa Sall le 7 mars 2017 ñu xëy suba indi le ministre de l' intérieur nga ñëw ministre de l' intérieur xam nga ni ñun opposition bi duñu am ci yow yaakaar ndax xam nañu ne foo mas a jaar maanaam fexe noo teqatalee opposition bi ba duñu ne candidat rek moo mas a doon sa métier bi nga ñëwee li nga njëkk def rek. mooy problème soo ko daal di feeñ waaye nag problème Ousmane Sonko bi mu feeñet Sénégal yi wan nañ leen ne mbir mi ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñu téel ko seen bopp ndax jóg nañ wan leen ne leen dañ leen a abaloon pouvoir pouvoir bi tey jël nañ monsieur le ministre jàpp naa war nga xoolaat sa doxaliin ndax ndaw nga sa avenir mi ngi sa kanam ca boo moytuwul politiciens yi danañ la sànq ndax ndaw nga bu yàggu rek gis naa sa sa sa ci la yilifoon muy Aliou Ndaw jox la ay conseil ca conseil war nga ko respecté mooy xoolal fi ngay def xoolal fi ngay teg sa tànk sinon ëllëg danga xat lool ci Sénégal ndax Macky Sall dana dem bàyyi la fi nga des ci Sénégal xat ci Sénégal lool la nag dara àdduna jëru li nga xamante ne nag mooy rapport ma doon si ñëw nun franc muy FRN d'accorduñ ci ànduñ ci suñu bëgg-bëgg mooy ñu amal élection yi ci deux mille vingt bi ndax gis nañu ne wane ngeen seenu cuune tey rek wane waat ko tey rek wanewaat ngeen ndax élection mi ngi waroon am le premier décembre deux mille dix neuf ngeen dàq ko ne euh, peut-être mars deux mille vingt ñëwaat ne au plus tard le vingt huit mars deux mille vingt et un ngeen au plus le 27 février 2022 bien waxaat au plus le 31 euh, janvier 2022 kon bi nga ñëwee que rek indi nga ñaar ñaari date yu Et indi nga date boo xamante ne au plus le 27 février 2022 vous avez nga amende boo xamante amendement boo xam yaa encore euh, le 31 janvier 2022 nga savez ne vous, dafay wone rek xamu leen fu ngeen jëm dafay wane seenu tëlee dafay wane ne euh, vraiment xamatu leen fu ngeen jëm benn mbir nag lañ leen di xamal mooy Sénégalais yi li ñu leen mayoon Sénégalais yi nangu nañ ko tey teel ko seen bopp. pouvoir bi tey nekkatul ci seeni loxo mi ngi mais mi ngi ci loxol tey askan wi tey lu ngeen di décider te day fekk askan wi ànd ci bu ci askan wi àndul mënu leen si dara te wane wane na nga ko barki démb sa tëlee parce que wane nga ko. mooy toog nga ñetti fan yoo xamante ne Sénégal ci boppam yow ministre de l' interne Benno Bokk Yaakaar nga woon ñetti fan yooyu nekkatuloo woon ministre de l' intérieur loolu dafay wane ne vraiment seen doxalin baaxul dafay wane ne wane ngeen seen tëlee mais nag liñ lay dénk di la ko yóbbante ci président Macky Sall mooy mayatuñu ko suy wàññati su ne un deux trois un deux baatub chiffre trois moom bu mu ko tudd na ko tëb kooku moom mayatuñ ko ko moom wala baabu bis bu ko defee rek ñu delloo buum ca boy boy ba ca bis bu ñu delloo buum ca boy boy ba bu boobaa du baax si moom ñii nag di coow fii tey ñii di coow fii tey gisuma ci kenn bi coow li amee ñu ci bari ñu taxaw ci débat di wax wala tele ñëpp dañoo daw làqutu bi lu mel nii nag du ministre du kenn lépp ci ñii dañoo dawoon làqutu ji ñooñu nag ñooy gëmloo président Macky Sall bu dara disul lu may problème bi ñëw ñu bàyyee ko ko moom mu wéetee ko na moytu def attention sénégalais yi fal nañu ko ñaari yoon 2024 na organiser ay élection ñu teg ko ci yoon ñu war a bokk bokk ñu dem élection ku gagné ñoo xam ne sénégal yi kii la ñu fal moom mu dem si jàmm su ko defee bu boobaa mu bàyyi réew mi si jàmm lu dul loolu su ko defee rek dana taal réew mi te du fi toog ndax li wér te wóor mooy sénégalais yi moom xam nañ bu baax ne mbir mi ñoom ñoo ko moom comme nag mbir mi sénégalais yi xam nañ ne mi ngi tey seen loxo tey kenn duutul doxeeti nu la neexee doxee nu la neexee moom jeex na fi moom indi sa ministre intérieur teg maanaam mu lay sàccal élection taxaw fii naan danaa organiser ay élection buñ ca àggee danaa fexe ba jël nit ñi ñi bëgg a voter Macky Sall ñu électeur ba yóbbu leen ñu dem voter Macky loolu moom jeex na fi kooku moom def leen ko seen bopp asalaamaaleykum wa rahmatullah